samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Adama Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey nag ñu dellu am mbégte daal di euh, invité euh, Bachir Diawara mu nekk membre comité directeur bu euh, PDS ba pare tamit nekk secrétaire national chargé des télécommunications Bachir ñoo ngi lay nuyu. jërëjëf Abdou Khadre maa ngi lay nuyu bu baax di leen ziar di leen. remercier également ci seen invitation di nuyu également sa technicien. Adama Adama. Euh, di wax ni rek nga may moom ma nuyu sénégalais yëpp aussi di leen massawu di leen jaale euh, par rapport ak li nga xam ne moo fa xew ci émeutes yi métti yi nga xam ne Sénégal dund na ko nga xam ne ñu ngi ciy tudd ay nit ñu bari ñoo xam ne génn nañ ci àdduna. Hmm. Euh, ci ay manifestations yoo xam ne ñu ko doon def donc nit munul def lu dul commencer massawu leen naqarlu loolu également. wax ne euh, guléet li am Sénégal te nekk na loo xam ne jusqu'à présent euh, marqué na conscience collective defe naa ni bu ñu demee ba nga xam ne ay organismes internationaux yu crédible comme Human Rights Watch hmm. ak euh, organisation nationale yu crédible comme ay Ligue sénégalaise des droits de l'homme ay Amnesty ak toutes les organisations qui s'occupent de la défense des droits humains gis ngeen leen ñu prononcé aussi de la même manière également gis ngeen position bi nga xam ne moom la ci force vive yi am Euh, pour euh, véritablement condamner loolu. Euh, pour nga xam la ko bu mais est-ce que Bachir yaa ngi jaale ñi nga xam ne ñàkk nañ seen mbokk est-ce que PDS présenté na ay condoléances ay condoléances am Euh, parti démocratique sénégalais defe naa ni euh, dafa nekk parti boo xam ne dafay suivre le débat politique bu baax a baax a baax mu nekk un parti bu proactif lu bari da koy wax defe naa ni laataa même yëngu-yëngu yi di am am na lu bari loo xam ne junjoon nañ ko. Euh, bi lii amee aussi tamit dégg ngeen déclaration bu Karim Wade nga xam ne moom mooy candidat wu parti démocratique sénégalais. Mm-hmm. yaakaar naa ni bu Karim Wade waxee en tant que candidat du parti démocratique sénégalais jaale sénégalais yëpp. yaakaar naa ni parti démocratique sénégalais dans son ensemble la jaaleel loolu tamit lu am solo la lu ñu war a retenir la def na ko yaakaar naa yéen ñëpp traité ngeen ko dans vos différents journaux. candidat la woon ban candidat moo fi am PDS bu dul Karim Wade. ba léegi nii mais bala ngeen waxat candidat bu ngeen demoon tey ba élection jub si bu dee Karim ñëw na xanaa da ngeen da ngeen ngeen da ngeen. Euh, naturellement on va mettre les formes. c'est-à-dire que euh, la bëgg wax ni ba ba ba fi ñu toll nii amul benn candidat boo xam ne <laughs> Karim Wade la moom moo nekkoon candidat 2019 élection amagul ci diggante bi ba léegi nii moom mooy candidat wu parti bi donc loolu mooy li nga xam ne moom mooy doxalinu politique. d'accord su ñu demee nag ba nga xam ne jëm nañ jëmbi jamono lépp loo xam ne par exemple war nañ ko def ci formalité généraliser wala bu fekkente ni par exemple dañuy euh, gën a leeral mbir mi également bu ko laajee danañ ko def. Euh, jërëjëf euh, Bachir Diawara mënuñu la invité aussi commencé te laajuñu la ki nga xam ne mooy maître Abdoulaye Wade président de la République baa mag si jàmm. waaw alhamdulilah Abdoulaye Wade mi ngi si jàmm maître Abdoulaye Wade mi ngi si jàmm bu baax a baax mi ngi sant yàlla. Mhm. mi ngi leen di nuyu aussi également. fan yi dafa tukkee. waaw dafa génn réew mi. d'accord léegi euh, Bachir Diawara yow nga nekk membre comité directeur bu parti démocratique euh, sénégalais euh, am na actualité boo xamante ni moo xew ci Sénégal jëm ci mbir yi Ousmane Sonko ak Adji Sarr mbir mi bi nga ko déggee yow noo ko dundee ak lan moo si njëkk nekk sa xalaat. jërëjëf Abdou Khadre c'est vrai que ci njëlbeen bi ma déggee coow li dama xawoon jaaxle tuuti quand pour dire la vérité parce que. yaakaaroon naa ni am na leneen loo xam ne moom la ñu waroon servir débat public bi euh, lu dul loolu waaye lu ñëw la dal ci kaw askanu Sénégal c'est-à-dire mu nekk coow loo xam ne am na ci ñu bari ñoo xam ne sax dañ leen ànd ak gêne pour wax ci mbir yu yu mel noonu euh, loolu sax dem na ba ñu weesu ko parce que am na leneen lu mu jur loo xam ne euh, fitna la indi ci réew mi dafa yaakaar naa ni yéen ñëpp gis ngeen ko mu jëm ci wàllu émeute yi tey jii nii on parle moins de Sonko et d'Adji Sarr on, on parle moins de Sonko et d'Adji Sarr on parle plus des émeutes n'est-ce pas et de ses conséquences foofu la sénégalais yu toll alors loolu lu muy wane moom mooy euh, lecture bi nga xam ne moom laa ci am moom mooy euh, dañu war a moytu bu baax a baax suñu nekkee ci démocratie di def lépp loo xam ne dafa xeetoog lu ñuy wax instrumentalisation de nos institutions te ci mbiru euh, nan lañ ko instrumentaliser xale bu jigéen lañ toom tooñ wala mu jàpp nañ koo tooñ mu dem porter plainte loolu duma ci wax dama ci am position bi nga xam ne nga baal ma xëy na Sénégal dañu nekk ci pays laïque mais xëy na loolu euh, dominé na ma quand même c'est-à-dire que position bi nga xam ne moom laa ci am mooy position jullit d'abord parce que nag Sénégal ensemble lañ mais am na ci loo xam ne euh, prépondérance la ci sama jëmm euh, comme aw ma ñeenti seede aw ma lu ma ci lu ma ci lu ma ci expliquer Euh, li nga xam ne moom la ma lislaam wax moom mooy su ma ci amul ñeenti seede aw ma pour prononcer wu ci donc dama ci bëggoon a maanu ci loolu moom d'accord maintenant conséquences yi nga xam ne mhm. jur na ko ak mhm. mbir mi niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko téye moo nekk li nga xam ne dafa ëlëm sénégalais yi dafa ëlëm ñi nga xam ne dañu nekk ay organisme de droit de l'homme ëlëm aussi tamit ñi ne dañu nekk au niveau de l'opposition ba finalement gis nga tole bi nga xam ne moom la def Sénégal jéggi même Sénégal dem ci diaspora bi kon ñu xam ne am na benn verdict boo xam ne nga bañ ko nga nangu ko mooy c'est un verdict populaire c'est un verdict populaire qui dit que peut-être li ñuy tuumaal Sonko nekk na loo xam ne euh, teguwul ci yoon loolu mooy li nga xam ne moom la Sénégalais yu bari bokk exprimer donte ne du loolu rek moom moo taxoon yëngu-yëngu yi nga xam ne am na euh, ci fii ci fii ci biir dakaar ak ci biir réew mi xëy na loolu dafa nekk un élément déclencheur d'un mal-vivre de Sénégalais du morosité sociale ki nekk que l'aboutissement logique peut-être de politiques incohérentes d'emploi que le gouvernement alors euh, a entreprise depuis un bon moment yàgg naa leen wax tout le temps ci débat yi ne leen munu leen nekk ci benn état boo xam ne da ngeen ni euh, am une politique cohérente d'emploi fekkee regroupé wu leen structures yi nga xam ne ñoom ñooy jëm ci wàllu ata wala dana ñëw ci loolu euh, Bachir Diawara mbir mi bi mu xewee gis nañ ne njiitul Pastef di Ousmane Sonko dafa waxoon ne di wuy ci yoon ba mu yàgg mu ne dina wuy ji déclaration boobu ne du ma wuy ji yoon ak woo askan wi ngir ñu génn fipp lan moo ci sa analyse. avec le boo xoolee bu baax a baax a baax jamono yi nga xam ne Ousmane Sonko mi ngi wax ni di wuyu ju yoon nañ ko situer ci contexte bi mooy jamono yi nga xam ne. Euh, levé wu ñu woon immunité parlementaire am man dégg naa ko ci làmmiñam mu wax ne bu ñu levé immunité parlementaire am dana dem wuyu ji yaakaar naa ni ci disposition yooyu la nekkoon. mais biñ ko donte ne donte ne niñ ko levé bëri na ay rëq-rëq yoo xam ne gis ngeen taxawaay bi nga xam ne moom la suñu groupe parlementaire euh, bu liberté démocratique euh, taxaw. muy dirigé par euh, Cheikh Bara Dolly Mbacké président du groupe parlementaire ñu am ci taxawaay bu rafet d'ailleurs c'est le lieu de féliciter tous les députés du Parti démocratique sénégalais et du groupe parlementaire Liberté démocratique muy ñoom Mame Diarra Fam ñoom ñoom euh, Cheikh euh, Bara Dolly ñoom Marie Sow Ndiaye ñoom Girassi ñoom Cheikh Bamba Dièye ñi nga xam ne mhm. def nañ ci xam-xam artu nañu également mettre nañu en avant c'est-à-dire la, la, la, la, nécessité de préserver, en tout cas, les libertés démocratiques à travers véritablement la préservation de la sacralité, n'est-ce pas, de l'immunité parlementaire. loolu dafa am solo parce que peuple bi moom moo la fal donc loolu aussi bu ñu koy dindi dañ ko war a dindi ci anam yoo xam ne anam yu am solo la mais nag lii yëpp nga may ma rek ma marqué benn pas dafa nekk loo xam ne parti démocratique sénégalais daf ko yàgg wax dafa yàgg yee sénégalais yi ci loolu bu leen fàtte ni li ñuy yëkkati ci ay. malaanu sutura ci ay député euh, ci nguuru Macky Sall ëpp na pratiquement euh, six. ñu ngi ci mm-hmm. sept. Mm-hmm. te li ci bari parti démocratique sénégalais la ñu bokkoon ñun doon nañu alerte di wax ni ñun bañuñu reddition des comptes bëgg nañ képp koo xam ne dañ la dénk. dara ci biir réew mi su fekkente ni jot na nga daal di leeral ci kanamu askan bi loolu dafa bokk ci li nga xam ne moom mooy un devoir de réduction des comptes loolu amuñu benn difficulté mais ñoom nag nañ daan defee di acharné wu di génne ay député si naka sudul noonu di dem sax di cueillir ñenn ñi depuis Kolda le cas de Ousmane Gom nga xam ne euh, dañ ko doon dénoncé bokk ci nag organisation yi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci Sénégal di euh, xeex ci wàllu àq ak yelleef doomu adama dem si yàlla Aboubacry Mbodj ñun ñëpp doon taxaw di ànd ak ñun di xeex parce que xamoon nañu on avait raison mais xam nga jamono yooyu parti démocratique sénégalais il faut le dire. Euh, dañ maanaam xëy na li li waroon ci askan bi ci déglu ci parti démocratique sénégalais xëy na mënuloon nekk et ça se comprend lu tax parce que PDS mi ngi dooroon wàcc mhm. mi ngi dooroon mhm. donc jusqu'à présent élan populaire boobu nga xam ne moo jële woon fi PDS da doon des donc nit ñi xëy na yenn yi soo ko doon wax sax dañuy wax ay logique d'adversité politique la mhm. xëy na nit ñi mënuñoon gëm boobu lu ngeen doon xeex yi voilà mais ay principe principe yi nga xam ne tey moom moo taxoon moo taxoon ñu doon xeex pour que ñu bañ a yëkkati malaanu euh, kiraay député suñu député yi moom moo indi parti démocratique sénégalais groupe parlementaire bi ñu continuer xeex principe yooyu. waaw mhm. mais Bachir euh, ñaari déclaration déclaration Ousmane ko def yow lan moo ci sa analyse euh, lan lan moo ci sa commentaire en tant que homme politique. c'est-à-dire. dafa def déclaration wax ne na askan bi génn fipp ndax am nañ ci sañ-sañ beneen bi ne. Euh, bu ñu dindee sama malaanu kiraay dinaa wuy ji ñu war koo dindi mu ne du wuy ji ndax ni ñu koy euh, procédure bi jaarul yoon. Hmm. comportement Ousmane Sonko boobu yow lan moo ci sa xalaat. man je pense que chaque chacun a son autonomie de pensée et d'action maanaam ku ci nekk am nga nu nga xam ne noon ngay xalaatee. bu doon yow noonu ngay doxalee. Euh, bu doon man noonu laay doxalee moi je pense que buñ ma tegee loo xam ne jàpp naan du yoon. yoon yi nga xam ne moom la ma samay àq ak yellef may ci biir réew mi danaa ko utiliser jaamaaroog li nga xam ne moom mu bëgg a teg fitna kooku moom c'est tout à fait c'est un naturel c'est-à-dire que tey bu ma nit bëggee faagaagal si naka sudul noonu dama koy jaay sama bakkan kooku yaa a aucun problème loolu ça peut se comprendre sur chaque wax ma sax Ousmane Sonko bu ñu bi ñu jàppee fii Karim Wade ci naka sudul noonu gis ngeen taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxawoon ñun ñëpp donte ne dañ ko jaay doole force ko yóbbu ko <laughs> kidnappé ko tëj ko pendant combien de temps Khalifa Sall aussi même chose Sonko peut-être ça n'a pas été la même chose ndax jamono boobu fekk na sénégalais yi mooy li ma la wax tout à l'heure accumulé nañ frustration yoo xam ne ça n'a rien à sax xëy na ak affaire arrestation Sonko bi tembe tembe mais arrestation Sonko bi comme ni ma ko waxee ci njëlbeen dafa nekkoon un élément déclencheur de cette colère populaire ne dafa nekkoon en gestation. d'accord mais yéen dañu gis ne yoon soxlaa. fekk ko Sénégal mais dafa euh, ñëw ci réew mi dem ci euh, dem tribunal ñu àtte ko euh, taxawaay boobu Karim amoon lan nga jàpp ne moo lu tax Sonko amul taxawaay boobu. dëgg la euh, Karim Wade euh, na benn acte boo xam ne acte bu historique la buy wane véritablement son ancrage dans nos valeurs sociétales dans le courage politique de maître Abdoulaye Wade ak également weg gi nga xam ne weg na ko askanu Sénégal looloo taxoon mu ne ak njott gi mu njottoon ne également que ci justice bi donte ne sax mën nañu instrumentaliser justice bi mais am na ay magistrats yoo xam ne li ñuy wax rek fu ndox daan taa mu nga fa lool tamit yaakaar la woon bu am man mii bokkoon naa ci ñi nga xam ne dañ demoon jëli euh, ki nga xam ne mooy Karim Wade bi muy jógee euh, bitim réew mhm. di ñëw wuy si ñun ñoo ko teer woon bi ñu ko gisee jour boobu dafa ànd ak sérénité sérénité bu mat sëkk am na sax ñu ko doon tooñ naan ko mais Karim waroo woon ñëw da ko mais moom li mu gëm moom mooy àdduna da ngay engagé wu ça n'a rien à voir avec le cas de Sonko munoo comparer par exemple kaawu Karim Wade ak kaawu Sonko mais kaawu noonu si wax mais kaawu justice bi la ñuy wax waaw dañu gis ne même juge yi ñoo fi nekkoon hmm. même tribunal bi la dañu gis ne Karim dafa demoon yoon wuy ji yoon hmm. mais Ousmane Sonko ñenn ñi dañu jàpp ne bëgguta wuy ji yoon non man jàpp ma ni. Euh, ba non même bu même bu dee jël na euh, bëgg na dem wuy ji yoon mais dafa ŋàññi li nga xam ne mooy justice bi ak yenn ci ay àttekat. non je pense que loolu ñun euh, nekk nañ ñun ñoo njëkk nekk ñi nga xam ne ñoo ko ŋàññ ñun ci procès Karim Wade bi nous l'avons toujours dit on avait dit que CREI bi nga xam ne moom moo doon diriger procès Karim Wade bi nekk na tribunal boo xam ne dafay inspiré aussi une loi scélérate. boo xam ne li ko taxoon a jóg moom mooy neutraliser un adversaire politique loolu yaakaar naa ni soo xoolee suñu débat yi ñuy def depuis le début jusqu'à présent di nga gis ni dañ cee làggi maanaam dañu wax a wax a wax a wax a wax ba Sénégal yëpp xam nañu wax nañu ba parti démocratique sénégalais xam ne wax nañu position yu forte lañ doon parce que on soupçonnait l'instrumentalisation de la justice effectivement c'est ça qu'on a sur affaire Karim bi gis ko tamit ci affaire ci affaire Khalifa Sall bi du ma ñëw encore sur les circonstances euh, yi ñi démissionné en pleine audience ak avocats yi euh, yi nga xam ne dañu rendre seen démission par éthique et par morale yenn forfaiture yi mënuñu ko woon fekke ak yeneen ak yeneen ay commission rogatoire yu ñu yónnee dafa am euh, euh, un compte de 47 milliards à Singapour alors que c'était du toc et d'ailleurs Albouri Ndaw boobu kenn déggatu ko léegi personne ne l'entend te moom moo ko tuumaloon donc dëkk bi yàgg na am ay dérives autoritaires yoo xam ne xëy na euh, sénégalais yi amuñu woon maturité bi tax peut-être ñu mun a opposé wu taxaw wax ne lii kat war naa doy donte ne su fekkente ne manifestation am na du ma bokk ci ñi nga xam ne dañuy cautionner li nga xam ne moom mooy yàqal doomu aadama. d'accord dana ci ñëw euh, Bachir euh, Diawara li nga xamante ni mooy kaawu Ousmane Sonko euh, moom dafa jàpp ne complot la dem na ba ci tudd njiitu réew mi di Macky Sall ndax yow sa li nga jot a dégg jàpp nga ne complot la. man euh, sama position personnelle par rapport ak euh, mbiru Ousmane Sonko wax naa la ko tout à l'heure je lui donne l'autonomie de pensée et d'action moom xëy na am na ay éléments d'appréciation yoo xam ne man awma ko tey tey tey tey mais li ma mën a jàpp daal moom mooy errance bi maanaam euh, waroo bi bari na ci trop trop trop trop mbir mi lëndëm na trop ci kanamu Sénégal yi loolu moom képp koo xam ne yaa ngi wax dëgg rek te yàlla tax en dehors de considérations politiques man ànduma ak Ousmane ko ci wàllu politique c'est vrai nu dañu bokk ci benn cadre bu mag bu tudd opposition waaye du bu dëgg jotee da nga koy wax. lëndëm na c'est-à-dire. lëndëm na moom mooy bu ñu demee ba gis ay euh, commissaire euh, comment euh, capitaine gendarmerie muy démissionnaire di gis également yeneen. juge bi yoroon dossier bi. désisté juge ak yeneen ak yeneen yoo xam ñu ngi ciy am yenn communication yi nga xam ne jot na am y a eu beaucoup de choses moi je pense que su fekkonte ni tey dañu nekk dans un état où les gens on suffisamment la prestance dañuy xool la conséquence des actes qu'ils man bu ma nekkoon tey ji place Macky Sall lu mel ni am ci réew mi su fekkente ni defuma ko tamit bu fekkente ne ay nit. ñoo xam ne dañuy wuyoo sama tur ñoom ñoo ko def je prends toutes mes responsabilités parce que la muy yàq en terme dimanche laa la wax de en terme dimanche de crédibilité pour le Sénégal Sénégal lu ko wala Sénégal ban problème doo fa am boo xoolee journaux internationaux yi dossier boobu la ñu indi c'est une honte ça il faut le dire moi je pense que ne serait-ce que pour ne pas écorner l'image de marque du Sénégal le président de la République de, se devrait prendre devrait devrait prendre pleinement sa responsabilité pour arrêter systématiquement parce que moom am na moyens yi nga xam ne tey tey tey tey war na ko mun a utiliser pour véritable kon bu yeggee fii dafa neex njiitu réew mi si li nga jàpp man pour bu fekkee politique la ñuy wax parce que tey ñi nga xam ne ñoom ñoo def mbir mi xaw ma je sais pas Sonko nee na complot la sénégalais yu bari jàpp nañu complot la yow loo jàpp yow jàpp non man li ma jàpp moom mooy y une situation où on a une arène de trouble où tous les coups sont permis ok nee naa la man munuma kitaabu ci alxuraan ne lii ak lii xam na li ma xam ci Ousmane ko mooy xamal moo ko lu bon. d'accord lu baax laa ko xamal jullite laa ko xamal du dëgg. Mhm. donc man damay bokk ci ñi nga xam ne suñ ma waxee lu mel nii position jullit bi mooy nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy bañ a gëm sax moo gën a wóor ngay bokk ci ñi nga xam dañuy gëm xam nga lu tax. Mhm. yow dina la laaj sa ana sa ñetti seede. loolu moom mooy difficulté bi man waxuma ni waxuma ni waxuma ni par exemple dëkk boo ci nekkee waroo wuyu yoon. képp koo xam ne yoon dafa la soxla war nga dem wuy ji mais nga wuy ji ci anam ya nga xam ne moom mooy anam yii nga xam ne moom la réew mu tëral nga xam ne du ñu salfaañe ak yelleef ak kenn loolu moom mooy difficulté bi nga xam ne Sénégal moom la. mais su dee dafa amul confiance ci justice su réewam nag. mais naturellement fii Sénégalais yi nga xam ne am nañ confiance ci justice seen réew il faut le dire <laughs> bari wuñu da nga leen di bu du bout des doigts ñi nga xam ne du am confiance ci Sénégal bari à commencer lu waral lool à commencer par ma propre personne non xam nga bu fekkente ne da nga nekk si dëkk gis lu bari jot fee xew nee naa limal naa la juste rek ay kaawu ñoom xalifa Sall ak Karim mais y en a beaucoup y a beaucoup de gens yoo xam ne dañ leen a arrêté injustement parce que seeni position politique wala seeni opinion la ñu la ñu la ñu ñu bëgg rey en vérité c'est ça te loolu tant mi ngi am ci réew du am respiration démocratique du am paix gis nga réew bu fekkente ne amul justice jàmm dafay tumuranke loolu yaakaar naa ni réew yu bari ay firnde lañ ci loolu kon nit ñi dañu war a delluwaat ginnaaw def une introspection xam ne àdduna jarul yenn yi àdduna jarul yenn yi d'accord lañu jël yëpp teg ko ci ah. yoon su ko defee képp koo xam ne war nañ la jaarale ci yoon yu jaarale ci yoon ci anam yi nga xam ne moom lay yoon wax su ko defee bu boobaa xëy na yenn difficultés yi nit ñi duñ ko am mbokk yéen a ngi déglu réew mi FM euh, ñoo ngi invité tey Bachir Diawara mu nekk euh, membre comité directeur euh, bu PDS nekk secretaire national chargé des télécommunications Bachir fitna bi bi mu amee ci Sénégal bëri na si ñoo xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan bëri na si ñoo xamante nii am nañu say gaañu gaañu yu méttee métti ci côté force de l'ordre yi ak askan bi bëri na si ñoo xamante ni yàq nañ ci seen matériel waaye ñi doon manifester dañu doon gis ne. Euh, dañu doon yàq loo xamante ni ay station yu Total ak ay euh, Auchan loolu lu muy wane. Euh, man mun naa ko jàngat sous plusieurs aspects xëy na am na ñu bari ñoo xam ne mettre nañ en évidence un sentiment anti-français mais man je pense qu'au-delà de ce senti sentiment anti-français dont véritablement euh, le mobile est conduit par des organisations que vous connaissez xëy na. Euh, seeni position yi ñu am am nañ bu baax fir euh, raison yi tax ñu am ko yaakaar naa ni c'est beaucoup plus un mal vivre mal vivre feeñ na ci bu baax a baax sous-emploi également feeñ na ci précarité sociale feeñ na ci parce que bu manifestation yi amee en général d'abord damay déplorer li nga xam ne am na ci mooy dee yi nga xam ne mënuñu ci ñàkk taxaw te loolu yaakaar naa ni mooy faute grave bi nga xam ne moom la njiiti réew mi def bi muy def son discours yow booy def discours mu mel mu am ay doomu aadama yu gaañu mhm. ci condition yu mel ni yaakaar naa ni waroon nga jël une position ferme wax ne ñii nga xam ne kat ay bakkan lañu te amul benn bakkan nag bu gën a ëpp doole moromam mhm. benn sax dafa ëpp ñooñu dinañuy jéem a def suñu kéemtalaay kattan pour mu am une enquête indépendante wala une enquête claire boo xam ne dina situer les responsabilités parce que nit moo amul droit ci démocratie ak fu munti jóge man je condamne la violence violence fu mu munti jóge je la condamne. rawatina amul taxawaay boobu. waaw loolu moom ngeen koy laaj. alors je pense très bien dina delloo si xelam parce que gis ngeen opposition bi aussi tamit si cadre m taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxaw bokk na ci li nga xam ne euh, laaj nañ ko njiitu réew mi. moom mooy que ñu ubbi benn euh, l'enquête boo xam ne dana leeral li nga xam ne moom am yaakaar naa ne même bu fekkente ne waa Sénégal defu ko uh-huh. parce que xam léegi àdduna bi nekkatul Sénégal kese le uh-huh. Sénégal n'est pas dans un îlot de forteresse daf ko bokk ay naataangoom ci àdduna bi Sénégal dafa souscrire à des engagements internationaux ak ay traités amul lenn loo xam ne mën na ko def ci salfaañi àq ak yelleef doomu aadama te ñu duñ ci am droit de regard am na ci ay organisation yoo xam ne cette question là danañ ko jël en charge kooku moom. est-ce que jàpp nga ne dina mujj fenn. ay euh, human rights watch lu war a mujj fenn la danañ dem CPI. lu war a mujj fenn la ne serait-ce pour respecter la mémoire de ceux qui sont partis loolu ak seeni famille. am na solo trop doomu aadama dafa foor ñu xool lii lan moo ko indi ñan ñoo leen rey ñu xool ñooñu naka lañ leen ni tegee ci yoon loolu mooy dëgg parce que bu ñu leen àttewul fii ëllëg bu ñu demee suñu borom yàlla dana leen àtte mënuñu rëcc fii rëcc fële. mais est-ce que lépp responsable njiitu réew mi la amul ñeneen ñu sama ay responsabilité su ma waxee ni lépp responsabilité njiitu réew mi la damay nekk nit koo xam ne dama naafeq déedéet moom daf ci am responsabilité bu rëyee a rëy. mais est-ce que Ousmane Sonko. mais amul ci responsabilité. Euh, Ousmane Sonko xëy na fi may jàppee ne peut-être euh, am na ci responsabilité mooy fi mu waree taxaw wax xale yi nañu. def calme yaakaar naa ni def na ko. ah un moment donné non mais dañ ko tuumaal aussi ne ñenn ñi dañu jàpp ne. dafa def appel à l'insurrection. xam nga man li ma jàpp mooy. Mhm. sëriñ bi bu fekkee ñun ñoom moom Sénégal ñun ñëpp. li ñuy faral di wax rek ne yow mi nga xam ne yow yaa nekk ci nguur yow yaa gën a am intérêt. pour maintenir stabilité dëkk bi parce que bu amul stabilité investissement du am dara du am liggéey du am dëkk bi dafay tàggatémbe donc yow mi nga xam ne yow yaa nekk ci bopp réew mi yow mi nga xam ne yaa yor nguur gi yow yaa ëpp intérêt pour préserver la stabilité du pays kon décision mun ti jël ci àdduna dafa nekk décision yoo xam ne da koy mûrir réfléchir euh, euh, mûrement da nga koy da nga koy da nga koy mûrir euh, da nga koy réfléchir mûrement warul nekk loo xam ne rek da koy jël à la va war na am ay kuréel yoo xam ne ñoom war nañ ko am pour su fekkee am na telle situation ñu saytu ndax lii bu ñu ko defee baax na ci réew mi wala baaxul ci réew mi su fekkente ni baaxul ci réew mi. ñu wax mais lan moo tax ngeen bëgg jël responsabilité bépp teg ko ci njiit réew mi. non xam nga man je suis clair dama la ne du ma jël bu dee responsabilité la cent pour cent yi la naturellement trente pour cent yi am na ñeneen ñu ko partagé mais moom li mu ci am ci responsabilité bari na loolu nee la moom ci jëmmi boppam rek munoon na enrayer munoon na fay procédure bi li nga xam ne moom moo indi lii yëpp donte ne nag su fekkul woon. du mbiri Ousmane Sonko ak mbir yi ni nga xam ne noonu la doon doxee ci Sénégal ci wàllu économie ci wàllu politique ci wàllu démocratie ci wàllu justice ci wàllu politique d'emploi ci wàllu manque d'investissement ci wàllu manque de transparence loolu yëpp bu fekkente ni mu ngi fi woon aussi di daje. Mhm. su dul woon étincelle Ousmane Sonko bii nii. Mhm. am na leneen loo xam ne. Mhm. am na am na am na leneen loo xam ne euh, mënoon na ko mënoon na ko taal. parce que c'est ça le le le le le. waaw d'accord yow léegi euh, Bachir euh, jàpp nga ne ñi si faatu président Macky Sall keroog bi muy def discours bi waxu ci. kane dina ci ubbi enquête. non dafa wax ni danañu indemniser. d'accord mais waxul enquête. enquête la ñu déggul te man loolu lu ma ëlëm la. parce que fépp fu musa am lu mel noonu quand même. Mhm. président bi ci boppam. man suivre naa situation yu mel ni yu bari ci bitim réew. Mhm. président yu bari bu luy amee. automatiquement da ngay gis fermeté bu ñuy am pour wax ne lii nañ ko leeral xam nga lu tax. Mhm. parce que doomu aadama da nga koy fonk dafa fort. benn bakkan bu rot dafa am solo masama ñaar wala ñett wala juróom. mais ko ce que duñ ko nëpp nëppal nga jàpp. buñ ko nëpp nëppalee tooñ nañu Sénégal. buñ ko nëpp nëppalee rendre ñu service Sénégal yaakaar naa ne tey jii état bi sax moo ëpp intérêt pour ko loolu leer pour que ëllëg. ñu xam mun a situer ses responsabilités yi parce que doomu aadama comme ni ma ko waxee bakkanam dafa fort. Mhm. donc yaakaaruma ne ay nëpp nëppal. dina am dina mais yow euh, Bachir danga wax que ne euh, ñi wàccoon ci mbedd mi amaana am na suñu bari ñoo xamante ni. Euh, jafe-jafe amuñu xëy wala dund dundin waaw bari na ci ak nekkin waaw bari na ci trop yow loolu nga jàpp moom la njiitu réew mi di Macky Sall mujjee wax nee na coronavirus beek tolluwaayu réew mi mais ministre de l'intérieur waaw foofu laa bëggoon ñëw ok xam nga d'abord euh, bu fekkonte ni dañ nekk dans un régime sérieux ku mel ni Antoine Diome ministre de la justice ñooñu waruñu woon sax taxawati ci gouvernement. lu tax waaw parce que kaddu yi ñuy yëkkati mu nekk kàddu yoo xam ne matewul ñoom responsabilité yi nga xam ne moom la ñu am yaakaar naa ni boo amee ay manifestation ak ay Aïssata Tall Sall également. parce man pour éviter que dëkk bi am une situation insurrectionnelle parce que gënalu ma man en tant que opposant tey bu amoon situation insurrectionnelle même transition démocratique souvent dafay difficile loolu kenn du ko souhaité kenn ñaanu ko yàlla mais à défo que président bi ci boppam mu jël ay responsabilités ñi nga xam ne dañuy nekk di def ay dérives verbales ku ci mel ne Antoine Diome di wax ne ay terroristes lañ wala nga dégg ay Aïssata Tall Sall ne c'est des forces occultes nga wala nga dégg ne kële na ay mbër lañu mais est-ce que xam ngeen loolu nu mu grave c'est-à-dire loolu tiital nañu investisseurs yi nekk senegal yépp ci benn situation boo xam ne mënoon nañ ko contenir suñu biir malgré que am na ay mort mais ñu xam am lucidité am franchise xam ne lii li ko indi c'est pas une affaire de terroriste c'est pas une affaire de je sais pas de force occulte qui instrumentalise x y nañu jàngat bu baax xam ne sénégalais ci boppam kenn ku ci nekk da nga signal signaux xam ne da nga ko lancé et que ñoom ñoo war a décrypter signaux yooyu et la construction des réponses je pense que ça la question fondamentale qui importe de débattre mais bu ñu bëggee trouver ay faux fuyants ba pare foofu fuyants yoo xam ne sax day di gën a bokk ci lii tiital investisseurs yi di leen wan ni Sénégal nekk na dëkk boo xam ne alors amul sécurité amul véritablement sérénité loolu lu graaw la alors que nous traversons une crise boo xam ne bu doy waar la. mais euh, Antoine Diome euh, moom nee na gis na ñoo xam ne dañu yoroon fetal si manifestant yi. mais su fekkente ni gis na ñoo xam ne dafa yoroon fetal moom xam na li nga xam ne moom la ko yoon may su fekkee dafa am ñoom dañu utiliser parce que manifestation man li ma ci xam moom mooy nga am ay position contraire xëy na ak nguur gi. waxuñu la nga toj waxuñu la nga gaañ waxuñu la nga rey mais nga manifester li nga xam ne moom la sa ax ak yelleef may ci constitution bi may la ko ci wàllu démocratie mais nag day fekk bu boobaa également ñi nga xam ne ñoo jiite nguur gi jël seen responsabilité bàyyi restriction démocratique yi ñuy def ci Sénégal cest bu ñu fekkente ne am na marche boo xam ne dañ ko demander ñu xool lu ñuy encadrer marche bi Abdou Khadre saa yoo seetloo bu ñu teree marche la ñuy indi ci policier pour réprimer moo ëpp war a ëpp fuuf li nga xam ne moom la ñu waroon utiliser pour encadrer yàgg nañ ko fee wax donc l' état doit faire des efforts pour une respiration démocratique faire en sorte que les manifestations soient autorisées que ça que, que, se passe dans des conditions de sérénité Sénégal am beneen image tey boo xoolee yenn dëkk yi nga xam ne ñu ngi nekk euh, ci Afrique ku ci mel ni Algérie Algérie exemple ci contestation citoyenne ci contestation populaire def nañ ay contestation yu bari mooy le mouvement Irak mais doo fa dégg ñu naan am na ay mordom d'homme est-ce que mos ngeen ko dégg su amee lu raar lay doon. ay uh-huh. accident lay doon. boo leen xoolee télévision. Uh-huh. da ngay gis mu rafet nga gis ñu yor ay drapeau algérien di def seen revendication état bi aussi am obligation déglu leen. parce que amul benn état. bu uh-huh. mun a diriger santa ta population. mais euh, Bachir euh, fi réew mi tolloon jamono jooju si ginnaaw est-ce que Sénégal mënoon naa takk euh, fi mu tolloo noonu ndax jaaxul ndax mbir moom euh, tollu toon foo xamante ni euh, lépp tegu woon na. moom laa la doon expliquer tout à l'heure xam nga euh, damay bokk man damay jàngat au-delà de ma casquette politique damay bëgg ñuy analyser objectivement les choses ñu d'accord ni rek mbiru Ousmane Sonko bi bi mu amee bokk na ci li nga xam ne wala sax mooy élément déclencheur d'une colère latente que la population vivait pendant très longtemps pour diverses raisons loolu. il appartient à la il appartient à l'État à sa responsabilité mu définir yan paramètres ñoom ñoo présider c'est-à-dire à ce bouillonnement social ñun am nañ ci jàngat bu leer te wax nañ ko nee nañ lii moo am Sénégal moom moo tax nit ñi génn pour diverses raisons am na ñoo xam ne génn nañ pour lii am na ñoo xam génn nañ pour lële soo demee ci étudiants yi yàgg ñu fi dégg ñu ay étudiants yi am nañu ay problème mu bourse ñu baaree université bi xeex est-ce que cette situation là une solution non ak yeneen ak yeneen ak yeneen gis nga également ci wàllu transparence ak bonne gouvernance il y beaucoup de choses qui ont été dénoncées mais gis nañ dafay mel ni parfois aussi état bi du am intelligence su intégré li nga xam ne moom la askan bi di xalaat te loolu bokk na ci li nga xam ne moo indi ay situation yu doy waar ay scandale politico-financier yoo xam ne comme affaire Aliou Sall bi euh, Petrotim jusqu'à présent sénégalais yi koo ci laaj dina la di bëgg naa mu leer mais amul fu mu koy leerale d'accord euh, yeneen ak yeneen Bachir euh, sànq yaa ngi wax ne mbirum Ousmane Sonko mi lu lëndëm la est-ce que jàpp nga bis ñëw Sénégal yi ndax Sénégal yi nag bëgg nañoo xam mbir mi mu leer Sénégal yi bëgg nañ ko xam ñu yóbbu ko ci tribunaux yi ñu ko mu leer man li ma jàpp moom mooy euh, euh, tooñ daal fu mu mënti jógee baaxul tooñ ak euh, teg doomu aadama loo xam ne mérité wu ko nekk na loo xam ne man duma ko. intégré uh-huh. bu fekkente ni aussi euh, usman Sonko. li ma jot a gis ci ay indice li ñu jot a wax yëpp tout cela vraiment ku nekk un sénégalais sérieux da bëgg lii ñu jël ko classé ko d'accord parce que finalement tu te dis que trop de contradiction y trop de difficultés alors procédure bi am na ay scandale yoo xam ne ñu ngi ci biir yoo xam ne da koy dégg tout le temps alors yooyu. dafay discréditer même à la limite la justice. Mmh. gis ngeen affaire Mamadou bi euh, comment s'appelle euh, nekkul loo xam ne dana simplifier dossier bi da koy gën a compliquer parce que moom c' était une pièce maîtresse de ce dossier là moom moo yoroon enquête bi am na une position claire par rapport à cela xam nañ ko te loolu aussi tamit lu jara bàyyi xel la nee na ñaari tribunaux dafay am day am tribunal boo xam ne mooy bu institutionnel bi mais y tribunal populaire boo xam ne sa xëy na <laughs> état bi du ko déglu mais lu état bi daf ko ci war a jàngat. d'accord waaw lii nit ñi di xalaat ci benn mbir. di ko xalaatandoo loolu dafa am solo pour état di ko jàngat c'est extrêmement important. d'accord mais euh, Bachir euh, Diawara euh, dama bëgg ñu ñëw tuuti arrière tuuti ci li nga xam ne mooy propos euh, ministre de l'intérieur. ak euh, ministre de de ministre de des affaires étrangères Aïssata Tall Sall ak euh, ministre de la justice maitre maître Malick Sall. xam nga ñetti propos yooyu dafa nekk yoo xamante ni dafa jóge euh, ci ay kilifa euh, tey Sénégal li ñu jàpp mooy euh, ministre de l'intérieur buy wax ci ay rapport lay sukkandiku. absolument ministre de la justice buy wax ci rapport lay sukkandiku. ci yoon ci yoon ministre des affaires étrangères buy wax ci rapport lay sukkandiku. ci yoon léegi nan la ñu mën a amee ñeenti rapport yu bokkul rapport bi wax ne ay bandi lañu ko terroriste rapport bi ministre de la justice ka ne ay mbër la ñii ne ay force occulte la président mag Sall ne coronavirus bi la loolu jaaxalu la am. xam nga xam nga Abdou Khadre lii am ba am moom mooy euh, dafa am une cacophonie boo xam ne du lii rek moo ko feeñal euh, te gëwuma ni sax man ñenn ñi bu ñu wax danañ sukkandiku ci ay rapport yu solide parce que boo xoolee ni ñuy defee ci circonstances yi ci defee déclaration à part peut-être. Euh, ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur xëy na moom am ay élément d'appréciation yoo xam ne aw ma ko mais man je condamne fermement ces propos qui son tel que Sénégal ay yooyu c'est c'est extrêmement dangereux cest à loolu wóorul sax nga koy wax ci en tant que officiel ngay génn kaddu yu mel noonu man foofu la loolu laa condamné dafa am loo xam ne. même soo amoon waru ko waxe noonu. non dafa am loo xam ne du ci télé wala ci rajo. feneen lañ koy régler c'est-à-dire que loolu tamit c'est une inélégance républicaine bu ñuy am parfois la sacralité de leur poste la souvent dañ koy dañ koy fàtte ku mel ni ay Aïssata Tall Sall bu demee ba ne y a des forces occultes qui sont derrière cette affaire là en tant que ministre des affaires étrangères représentante mais de notre diplomatie au niveau étranger c'est inquiétant ñaata invi ñaata contre-coup la ñu am au niveau des des des yi nga xam ne waroon nañ ñëw kenn mënu ko estimer ci kanam lañ koy xam alors pense que euh, avoir un peu le sens de la retenue, avoir le sens de la responsabilité, de la sérénité, le culte de la sérénité devant toute situation. loolu mooy li nga xam ne moom mooy tax su situation amee nga mun ko traverser mais c'est c'est pas dans la débandade c'est pas dans les déclarations mais mais Bachir yéen PDS tamit est-ce que amu euh, benn benn haine ci Antoine Diome ministre l'intérieur par rapport au dossier Karim Wade dama gis na dañ koy charger chaque jour man personnellement franchement du ma jàppee noonu sax doomu aadama man du ma du ma nourrir procès d'intention c'est-à-dire que xool la rek nii nga mel wala na la. non yéen PDS chaque jour da ngeen a chargé même bu dul rek ci ay fait. Mhm. laay basé wu pour euh, wax ni nit ki doxalim doxalinam baax na wala baaxul. Antoine Diome bu fekkonte ne man fekk moon procès Karim Wade gis ni mu taxawee ak position yi mu doon am xëy na jugement bi may am si moom tey duma ko am par exemple. te loolu nekkul ni parce que da ngay soutenir Karim rek nga wax ko danga nga koo teg ci ay firnde yoo xam ne ay éléments yoo xam ne da lay wóor ni lii jàpp nga ni méngoowul ak yoon xam nga bu ñu demee ba indi ay notaire ñu ñëw ne diw moom moom alal bii ñu ne ko déedéet yow notaire bi li nga wax du dëgg diw mii nga xam ne turam nekku ci muy Karim Wade moom moom moom alal bi biñ koy di jiin enrichissement illicite yow en tant que magistrat jour boobu da ngeen a xotti orma képp koo xam ne dafa nekk notaire ci Sénégal am na benn vieux boo xam ne dafa nekkoon ci procès bi dafa ne sama doom su fekkente ni këyitu notaire yi accepté wuñ ko tribunal bis ni ki tey nañu génn métier notaire ci Sénégal yëpp ñu xool notaire yi lan lañ leen utal mais nañu xam ne état bi boof na ci ci seen liggéey c'est ça la signification état il faut que mu am euh, sacralité nañu respecter li nga xam ne moom mooy fonction wu nit ñi bu ñuy toroxal doomu aadama yi selon les circonstances politico-judiciaires te loolu dafa bari ci mbiru Karim Wade bari na ci mbiru Khalifa Sall bari waat na encore ci mbiru Sonko on a vu l'histoire de Oumar Touré donc loolu mooy li nga xam ne moom la ñu war a corriger au niveau du Sénégal du caagin ni mhm. dañu bañ Antoine man personnellement je veux dire dañu bañ Antoine Diome non y' a bañ c'est-à-dire bañ sax c'est nekkul loo xam ne c'est anti sénégalais. Mhm. xëy na mën nga non am lu ngeen ko jàpp. voilà maanaam mën nga contre doxalinam. ak toogaay bi nga xam ne moom la waroon toog te toogu ko mun nga ko dénoncer. Mhm. mais munoo ñëw par exemple yéene ko safaan. loolu moom bokk ma ci ñi nga xam ne bokk euh, kii nañu loolu. léegi euh, Bachir euh, Diawara li nga xamante ni mooy mouvement ñu wax ci benn point boobu jàll ci leneen mouvement 2 de m M2D yéen ci ngeen bokk. waa PDS xam nga dafa génnoon front de résistance nationale. intégré na front de résistance réintégré na front de résistance nationale euh, que démb front de résistance nationale euh, front de résistance bi taxaw na fa PDS. d'accord mais médiation bi xalif de des Mourides def lan moo ci sa euh, jàngat. man personnellement lu may rafetlu la bu baax a baax a baax parce que nag Sénégal aussi dafa am ay réalité yoo xam ne ñoo fi nekk mënuñu ko mënuñu ko mënuñu ko. occulté. Mhm. mu nekk loo xam ne dafa làgg ci suñu culture làgg ci suñu tradition làgg ci suñu civilisation moom mooy euh, sénégalais dafa am kilifa mun nga ko waxal lu nekk nag waaye sénégalais bu ci nekk am nga wasila am na ci koo xam ne ci moom nga aaju du dëgg. Mhm. ku ci mel ni euh, Serigne Mountakha Mbacké yaakaar naa ni du bii mooy jéegoom yu njëkk ci dox jàmm ci réew mi du ne dañ koy ñaanal gudd fan ak wér. moom mi nga xam ne mooy suñu xalif général di rafetlu aussi tamit tànk yi nga xam ne dox na ko pour gën dalal xol yi tàppe xol yi ni ko moom Abdou Aziz Dabakh doon defee su réew mi tollaan fi mu jóg aussi tamit li mu ci mën a wax ci dëgg nag lépp lu ñu wax ñoom dañ koy teg ci dëgg parce que nit ñi mënuñu ànd su fekkente ni amul vérité soo déggee ñu naan souvent vérité réconciliation donte ne sax xëy na ñenn ñi nee nañu contexte bii ñu toll nii mënoo fi wax vérité réconciliation parce que jógewuñ ci ay guerre ak yooyu mais nous sortons d'une qui doit alerter la conscience collective sur la nécessité véritablement pour que chaque Sénégalais fasse son introspection y compris l'opposition et le pouvoir mhm. ñu war a transcender yu bare bare bare mun a toog xool naka la ñuy euh, euh, garantir la paix donc pour revenir sur euh, Serigne Mountakha Mbacké loolu dama koy rafetlu bu baax a baax a baax di wax ni dëkk bi dafa musa am ay régulateurs sociaux yoo xam ne su fekkente ne am na jaxasoo dinañ dox ci diggante yi xool nuñ koy tàppee mais loolu uh-huh. du daf leen wax ni bàyyi leen lépp loo xam ne activité démocratique la wala manifestation politique la wala leneen déedéet su dans une situation donnée mhm. am na lu mu wax parce que xëy na peut-être démb mhm. bu amoon wala tey ji je veux dire su amoon manifestation peut-être mënoon na ay débordement yoo xam ne. mënuñu ko maîtriser. xëy na loolu la njot moom moo tax mu dox ci tànku jàmm ba finalement. Oh, MDD daal di suspendre waaw euh, mouvement boobu euh, Bachir ñoom wax nañu que ne ku si mel ni Karim Wade Khalifa Sall dañu bëgg ñoom li ñu sàkku daal moom déclaration Ousmane def di wax na loolu même démb tamit boo dégloo seen déclaration bi. mooy ñi ñu ñu xañ seen àq seen yelleef ba mënut ñoo bokk ci élection euh, ku si mel ni Karim Wade ak Khalifa Sall yéen nan ngeen ko jàngatee. man loolu defe naa ni euh, mooy li ma da wax tout su fekkente ni nee naa la am na ay facteurs yu bari yu taxoon xëy na sénégalais yi doon euh, mer loolu bokk na ci li nga xam ne tamit ci facteurs yooyu la. bari na ay facteurs mais Bachir li ma jaaxal mooy pour man yéen man ngeen waroon ngeen a mën a bokk ci élection. waaw ci yoon ci yoon waroon nañ mun a bokk ci élection yi ñu génn nii deux mille dix na man loolu laa gëm. mais après bi yii nii tamit dégg naa ñu ne léegi Karim Wade waroon na mën a bokk. bien sûr fi mu toll nii rien ne s'oppose à ce que Karim Wade soit candidat. kon lu tax ñee ko souligner point boobu. ñan ñoo koy souligner. Euh, mouvement opposition bi. waaw non c'est pour être clair. c'est pour être clair par rapport à toutes les procédures qui ont été enclenchées. mais ah. en termes de droit civique. gis ngeen ci ku mel ni Ngouda Dione wax na ci lu leer droit constitutionnel la def. nee na Karim Wade mën na Ngouda Mboup mën na am say droits civils loolu mën maa ko wax. parce que lu ma lu ma xam-xam xam mais mais euh, mais euh, Bachir. Hmm. Euh, ñàkk wax tamit ci Karim Wade yéen Karim Wade instant bii nii Ousmane sonk ak ni nga xamante ni tey moom la firee ko ñëpp naan Ousmane Sonko chef de l'opposition est-ce que politiquement arrangé na PDS. waaw danga laaj benn question sànq boo xam ne da nga ne dafa bokk ci da nga ko da nga ko génn sax jukki ci dix points yi muy euh, le point relatif euh, à la restauration des droits civils et politiques de Karim. pour ceux-là euh, qui ont été condamnés injustement arbitrairement comme Karim ak Khalifa Sall yaakaar naa ni loolu képp koo xam ne bëgg nga Sénégal waroo nekk nit bu insensible par rapport à ces questions là parce que nag bëri na ay réew yu bari yu situation yi mel noonu yàq c'est-à-dire ay privation liberté démocratique Karim Wade Khalifa Sall dañu war a bokk ci élection yi keneen ak keneen dafa war a bokk ci élection yi yàlla moom mooy fal yàlla suñu borom moom mooy fal bu ñu demee ba 2024 ki nga xam ne moom la tàbbal ci xolu sénégalais yi kooku lay sénégalais yi di fal mais ñi nga xam ne dañu am seen àq ak seen yelleef war a bokk ci jongante yi bu ñu leen ko xañ loolu mooy dëgg beneen bi mooy sur la question du deuxième euh, du troisième mandat wax nañ ko ci Euh, ci ci MD MDD wax nañ carrément pas parce que bu ci Macky Sall amoon droit opposition bi du du wax ni du du du du du du wax ni warul bo warul am troisième mandat yaakaar naa ni loolu c'est un débat boo xam ne moom président de la République moo war a taxaw devant mu leeral ko su ko defee loolu dana ko permettre moom bu continuer gérer sereinement ba pare nit ñi danañ am une idée claire ne doxal ne li nga xam ne moom mooy yoon tey jii da gis gis moo Ibrahim bi nga xam ne dafa génn Euh, le prix du leadership africain ñi ngi ko jox euh, Mohamed Youssoufou bu Niger xam nga lu tax ñu jox ko parce que dafa sauver une situation de transition démocratique qui pouvait être chaotique mu defar ko ba mu rafet ne moom def na mandaam yi mu waroon def dafay teggi tànkam bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñooy nigériens ñoom ñu continuer def seen seen seen àdduna tey ji nii il est bien perçu ñëpp dañ ko respecté mën na sax concourir à des euh, euh, à des à est-ce que euh, fexe Karim Wade Khalifa Sall seen i droits civiques ak seen i droits civils ak def déclaration publiquement que ne du bokk ci élection 2024 est-ce que jàpp nga ne président Macky Sall. am na dina am taxawaay boobu man nekkuma ci xelam damay nekk ci li nga xam ne rek jàpp naa ni. li askan bi li askan bi ciy wax tout le temps dans toutes les couches sociales soo demee waxtaan ak nit ñi danañ la wax ñun lii ak lii ak lii ak lii naqari nañu ça moom c'est pas moi qui le dis c'est que da ngay génn rek nga def sa micro nga laaj tey ji ndax Karim Wade war na bokk ci élection yi wala ku mel ne Khalifa mais attends xam nga sénégalais bëggul sax mbiru beddi de nature sénégalais dafa communautaire boo dee xool mais le fekk nga bëgg a jël jukki ay sénégalais yoo xam dañu bokk fii am seeni droits civils et politiques ñu xañ leen ko ci condition yi ñu leen ko xañee war leen ko joxaat yaakaar naa ni tey jii war a nekk une préoccupation boo xam ne au-delà même de force de l'opposition m mdd dafa war a nekk le combat de chaque patriote parce que lépp luy dalal askanu Sénégal lépp loo xam ne dana indi jàmm ñoom waruñu ci yéex ñoom ñoo ci war a jiitu parce que comme ni ma la ko waxee ñoom ñoo am responsabilité garanti la paix dans ce pays. d'accord mais kon daal di ngeen bokk ci kuréel googu di ngeen xeex ci kuréel googu yéen. mais wax naa la ko tout à l'heure naa la m su amee c'est parce que FRN mi ngi ci biir FRN PDS dafa intégré FRN donc ka fa teewaleen FRN dafa teewal PDS. Mhm. mais yow est-ce que dama dégg Mamadou Diop Decroix ne xeex bi dafay doog di commencer. xeex bi dafay door a comme non xam nga su su fekkente ni Decroix dafa wax ni xeex bi dafay door a commencer man yaakaar naa ni processus la xëy na xeex bi dafay continuer processus la liberté yu bari Sénégal xeex na ko am ko téye. am na yeneen conquête démocratique yu nekk suñu kanam looloo waral Decroix di la wax ni xeex bi dafa war a continuer parce que bu ñu bëggee développer moom faw ñu sàmmook li nga xam ne moom mooy àq ak yelleef nit ñi ci wàllu démocratie ba nga xam ne dal dana am nit ñi dinañ nekk ci condition yoo xam ne du ñu jàpp ne dañ leen a beddi ñi nga xam dañu war a bokk ci élection ñu bàyyi leen ñu bokk ci ay élection prisonniers politiques yi nga xam ne téye nañ leen tey jii ci naka sulul noonu ñu bàyyi leen ñu jibbi seen kër bu fekkee da bëgg dalal noonu ngay def boo bëggee dalal sa dëkk da ngay xool li nga xam ne mooy moo mooy problème bi génnal ay ñoom Guy Marius Sagna génnal ñeneen ñi nga xam ne dañ leen a jàpp li nga xam ne war nga ko def ci wàllu emploi politique d'emploi mais defal une politique d'emploi sérieuse waxuma nag comme ay affaire u DER yi ah. nga xam ne yoo xam ne nee am na xaalisi DER bi ak nangam nag wax ma wax na conseil mais président ne dana dana convoquer conseil national de la jeunesse te ba pare euh, trois la moom lay génne xam nga l'idée n'est pas mauvaise même bu fekkee sax man damay jàpp ni trois cent milliards waroon na ko ëpp ci contexte bi ñu toll man tey ji bu ma nekkoon président de la République je pense que il faut plan il faut il faut planifier sur mille milliards dégg naa gars naan fan jëlee xaalis bi parce que Sénégal dafa nekkoon ci benn niveau d' endettement boo xam ne c' est vrai certaines institutions de Bretton Woods même lui ont demandé de ne pas emprunter plus de cinq cent milliards ça la dernière note mais loolu yëpp yaakaar naa ni ñàkk mmh. pexe weesuwul ngay jàpp ni xaalis mënul am mmh. pexe mi ngi fi état dafa fort am na ay partenaires am na ay relations te lu bari mën na ko def. d'accord mais mënoon nañu am beaucoup plus d'imagination. Uh-huh. pour am un programme structurel. gis nga man d'accord naa ñu jéem a xool nu ñuy dimbalee ndaw ñi mais yaakaar naa ni dafa am foo xam ne dañ fa lajj jusqu'à présent te dañ ko war a corriger mais Sénégal valeur ajoutée bi nga xam ne moom la ñu waroon def. ci production defuñu ko parce que lu bari ci Sénégal en brut lañ koy jël di ko yóbbu. d'accord naa Bachir léegi Bachir euh, waxtu wi euh, li si des bëriwul dix minutes moo si des mais sànq dama la wax ne Karim Wade politiquement parlant. Euh, ak taxawaay bi Ousmane Sonko am ni ñu naan chef de l'opposition est-ce que politiquement nekkul luy gën a nëbbu PDS. non xam nga pour le moment mënaguñu nekk dans des logiques de positionnement au niveau de l'opposition. les gens pourquoi lu tax politique lañ nekk non parce que ci élection tey xam j'ai l'habitude de le dire une foule n'est jamais traduisible en chiffre électoral donc man mënuma basé wu <laughs> par exemple sur une foule pour wax ne lii mooy électorat diw loolu ce serait véritablement insulter la science électorale du dëgg li mu mën a jàpp rek moom mooy euh, Sonko opportunité bu baax la ci démocratie sénégalaise bokk na yenn nguur yi ñu fal leen par exemple comme le cas de Macky Sall fal nañ la 2019 mais rapidement moom ay révolte populaire loolu ay jàngat la c'est vrai qu'il y résultats yi ñu waroon am moom la ñu am ainsi parce que parce que parce que que tellement les contestations vont bon train un peu partout en deux ans en moins de deux ans. mais yéen tuumaal nañ leen que ne yéen yéen a waroon a leen élection yooyu. yéen waa PDS. non ñun munuñu woon nekk ci position àtte wala ñàkkaate ñun position bi ñu amoon moom mooy position joxe suñu point de vue par rapport à la situation démocratique yaakaar naa y la position euh, du parti par euh, la voix de son secrétaire général national maître Abdoulaye Wade mu nekkoon position boo xam ne position bu leer la cest à bi mu demee ba nga xam ne natt na ni am na ci ñoo xam ne jàpp na ni moom li muy wax ne élection yi c'était déjà truqué d'avance gëmuñu ko mu ne leen bu fekkee da ngeen bëgg dem ci élection yi à la choisir leen tel tel ou tel candidat mais Bachir euh, démb euh, mouvement bi nga xamante ni mooy mouvement euh, de la défense pour la démocratie mouvement boobu wax na ne élection prés élection locale deux mille vingt et un deux mille vingt deux élection législative est ce que yéen PDS pare ngeen pour dem ca élection. waaw parti démocratique sénégalais contrairement ak xëy na sànq ñi ngi ko junjee wax ne. Euh, dafa xaw a. yéen moom waaw da ngeen a a kii daal léegi daal euh, nooy euh, xëy na xëy na xëy na loolu ci niveau de perception la rek mais jamono yi may wax yow parti démocratique sénégalais mi ngi continuer di def ay mi ngi wëyal organisation bi nga xam ne mu ngi koy war a def parce que ñun appareil lañ ñun on est représenté dans toutes les communes du pays mais néew leen doole est-ce que Bassirou néew leen doole PDS. xam nga xam nga balaa ngay xam force PDS il faut que élection jot. yàgg nañu wax lu mel nii nga wax ni tout à mais PDS c'est un autre parti beneen facette la PDS bokkul ak. mais euh, gisoo candidat bi gisoo ki ko jiitee waaw loolu ci kanam la. on est en on est en deux mille vingt et un n'est-ce pas. 2024 la élection yi nañu xaar ba booba yaakaar naa ni li ci kanam raw léegi fan ngeen toll ci seen structuration bi bas réellement euh, yéen a ngi daje. waaw pour dire la vérité comité directeur bi gëj na daje. Mhm. comité directeur bi gëj na daje parce que dafa amoon ay facteurs yu bari yu taxoon xëy na comité directeur boobu dajewuñu woon bokk na ci li nga xam ne moom mooy mbas mi bu ngeen seetloo suñu dañoo comité directeur duñu ko def juste avant mbas bi bi mbas bi ñëwee le 5 mars déjà bu 2020 ci la ñu njëkk a def déclaration au niveau du comité directeur wax na dañu suspendre suñu activité pour véritablement euh, faire partie de cela qui lutte mhm. contre la propagation du du virus donc loolu xëy na moom moo perturbé bouleversé li nga xam ne moom mooy suñuy suñuy programme mais teewul nous sommes en contact permanent parti lañ bu organisé wu yéen a ngi ci débat yi communiqué les gens participent au débat public du man rek maay ñëw ci débat public bi gis ngeen suñu représentant parti bi yëpp ñi ngi ci plateau yi ñi ci combat Sonko bii nii ak yeneen yoo xam ne mi ngi am ci réew mi taxawaay bu mat sëkk la et c'est le lieu de les féliciter honnêtement parce que nag euh, yàgg nañu ŋàññ assemblée nationale mais wax dëgg yàlla li ñu jot a gis ci fan yii yi yi yi fi jóge fan yi ñu weesu nekk na loo xam ne lu ñuy encourager la parce que député opposition yi dont ne bariwuñu mais li ma leen nawee mooy euh, teg nañ mbir mi ci xel teg nañ ko ci xalaat du ay saaga du ay xasante mais wax ngir intérêt sénégalais yi ci respect doomu aadama yëpp ak fu ñu munti bopp loolu la ñu taxawee biir assemblée nationale loolu c'est les waaw mais Bachir euh, dañu gisoon ne mouvement karimis yi amoon nañu doole lool euh, beneen bi mooy yéen lan moo tax wootewu leen ay mobilisation ngir exiger euh, retour Karim Wade waaw en fait li ngay wax mouvement yooyu lu wér la Euh, mouvement yu bari la yoo xam ne am nañu circulation bu bu am solo un peu partout euh, amul benn dëkk booy dem te doo fa gis ay organisation yoo ay organisation yoo xam ne du ñu uyoo euh, souteneuru Karim ñu ay excroissance su parti démocratique sénégalais lañ mais bu organisation bi amee biir PDS da ngay gis ñoom dañu bokk ñi nga xam ne dañuy dugg ci renouvellement yi dugg ci renouvellement yi am ay carte bu ñu amee carte dem Euh, am ay responsabilités au niveau de leurs différentes section bu ko defee ñu nekk ci biir parti bi parce que ñoom contexte bi nga xam ne ñoom moom la ñu ñëwee woon ñu ci bari boog mooy contexte bi nga xam ne Karim Wade nguuru Sénégal daf ko jaay doole bi ko nguur Sénégal jaayee doole mu am ay élan de sympathie yu bari yoo xam ne dañu développé wu ñoo xam ne sax bokk ñoon PDS ñenn ñi musuñu def politique je les connais ñenn ñi musuñu xam Karim Wade musuñu ko serrer la main mais ni ma la waxee nature sénégalaise rek bëggul kuy not doomu aadama mais xam nga Karim a ngi ñëw Karim du ñëw Karim ñëw na Karim ñëw est-ce que loolu amul lu bari lu mu yàq ci mouvement yi euh, naturellement mënuñu ko escamoter mënuñu bañ a intégrer aspect boobu man su ma waxee ne ñàkk ñëwu Karim bi amul lu mu indi ci ay laam-laame ci bopp askan bi damay wax lu ma neex parce que ci biir askan bi laa nekk damay waxtaan ak ñoom dégg naa seen i crainte dégg naa seeni i position par rapport au non retour de Karim mais je peux les rassurer parce que li jot rek yomb c'est une question d'agenda Karim Wade aussi tamit lu ko nit waxal tamit xam ne am na moom son agenda personnel mhm. yaa ngi dégg loo bëgg bëgg bëgg nit ki nit ki tamit moom ci boppam xëy na am na ci loo xam ne c'est son agenda personnel dañ ko koy nangul mhm. c'est lui seul de donner la date de son retour su ko joxee ñi war a organiser wu organiser wu kuréel yi déjà ñi ngi fi ñi war a taxaw dinañ taxaw bu boobaa ñu encadré ko ci li ko war a encadré yaakaar naa ni foofu la ñu toll maintenant euh, question bi nga waxaat sànq moom mooy logique de, euh, de positionnement boobu nga xam ne am na ñu koy entrevoir entre Sonko Karim éventuellement Khalifa Sall compte tenu uh -huh. de aura bi nga xam ne génn waaw Ousmane Sonko am na ko surtout ak par rapport ak manifestation yooyu yooyu laa lay wax ni man damay am réjouissance. même au niveau international Sonko principal opposant ngay man damay réjou damay am réjouissance par rapport à la respiration démocratique parce que rien n'est figé dans la vie ku mel ni Sonko ñëw bokk keneen ñëw bokk keneen ñoo bokk c'est la démocratie sénégalaise qui respire man conception boobu laa am man bokkuma ci ñi nga xam ne dañuy siisaate déedéet danaa gëm nag sama candidat danaa ko jàppale mais damay respecter Sénégalais yëpp ku ci nekk man nangul la li nga gëm. moo xam da nga nekk ak man biir opposition wala danga nekk feneen l' essentiel nañu teg affaire bi rek sur la base d' arme conventionnelle nee naa la bu ñu demee ba nga xam ne loolu yëpp lii yëpp weesu nañ ko mhm. lii mën a tax ñu xam ne diw am na doole wala ñàkk na am doole xëy na ay élection moom moo koy jërëjëf Bachir euh, Diawara euh, del amoon nañ mbégte bu baax a baax invité la ci rajo Rewmi FM jërëjëf Abdou Khadre maa ngi leen di nuyu bu baax a baax et à travers ta personne également maa ngi nuyu Mbagnick Diop Chouch mi nga xam ne moom moo moom kër gi. di ko hmm. encouragé aussi tamit moom it ci liggéey bu mu ne. jërëjëf euh, Bachir euh, Diawara président Mbagnick Diop ñu koy euh, nuyuwaale Bachir Diawara la ñu invité woon mu nekk membre ci comité directeur bu PDS nekk secrétaire national chargé des télécommunications seen émission pencum réew mi la woon ngeen ànd Seck Abdou Khadre Seck muy am samedi bu jot 15h jàpp 16h Adama moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm jàmm.